di am mbégte teew sa plateau comme d'habitude mm. di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñu seetaan suñu mm-hmm. waat suñu gaynde yi waaw am solo am solo ah. vraiment taxawaay bi rafet na j'espère que fur wi kenn yokk ko ah mu yokk <laughs> yàlla <laughs> kon euh, jërëjëf euh, ñu euh, tàmbali jotaay bi nag Cheikh ndax am actualité bi tey mm. mooy audience su recalé yi au palais de la République njiitu réew mi Macky dalal jamono ji depuis 18h30 ñu ne ñoo xam ne te sàkk woon ci moom mu indi ci ay euh, xëy na euh, daal njàppandal taxaw ci ni mu ci war taxawee taxawaayu kilifa taxawaayu président de la république mm. loolu nag moom la président Macky Sall di def waaye dafa jur coow xam nga ne ndax ñu bëri ci coalition boobu dégg nañ leen ñu ne duñu dem parce que ndaje mi amul sens donc sans plus tarder dañu ciy jokkoo ak docteur Cheikh Dieng docteur Cheikh maa ngi lay nuyu. Euh, soxna Fatoumata maa ngi jaare bu baax a baax. Mhm. yow nga nekk président euh, fépp euh, Tawfekh di parti nga amoon jafe-jafe aussi ci parrainage bi comme d'ailleurs ñu bëree bëri bokk ci collectif des alors lan mooy peut-être dëgg gi ci seen coow li ñuy dégg entre xëy na dañuy dempale ak duñ dem palais est-ce que am ngeen ci une position commune consensus boo xam ne. Euh, mun nañ ne moo waral ñi dem tey euh, dem jamono ji ñu nekk ak njiitu mi Macky Sall. oui tout à fait en fait euh, il faut bien replacer cette audience dans son contexte parce que le collectif des quarante et un ni ko doon nga xam ni donc conseil constitutionnel bi mu dañoo jàpp di baaxul dañoo regroupé wu élaborer un plan d' action ci plan d' boobu mu nekkoon ni dañuy dem gis toutes les institutions yi nga xam ne am nañu baat ci réew donc eh, institution bi ëpp baat ci réew bi nag mooy président de la république bi dañ ko bind lettre ngañ ko li nga xam ni moom lañ gis ci lu pare parrainage bi wante boobu lettre nekkul woon demande d'audience demande la woon pour que moom mu user de ses droits euh, en fait de ses prérogatives en tant que président du conseil supérieur de la magistrature man a waxtaan ak conseil constitutionnel pour que conseil constitutionnel reprendra la vérification ki nga xam ne moom la defo ñu bind également conseil à travers des recours de de chaque candidat ku nekk jënd li nga xam ni moom nga ngañ ci saytoo ci sa parrainage et que président conseil constitutionnel dañoo bëgg donc li nga xam ne moom nga doxalee sunu parrainage contrôle bi du ko xoolal bi ñoom foofu tamit dañu waxtaan ak chef religieux moo tax gis nga dagoon nañ Porokhane pour ñu waxtaan nañ ak union européenne donc société civile également waxtaan nañ ak moom c' vraiment un combat médiatique pour que ñi nga xam ni dañ leen spolié ci seeni parrainage ñu rétablir leen dans leur droit président Macky Sall nag bañ ko bindee mu bàyyi ba ñu defar liste définitive des candidats à l' élection présidentielle mu doog ñoo tontu démb ñu dama leen di recevoir ah booba nag ñu kon ah balaa ñu ciy wax daal dinañ réunion ñu xool nan la ñuy apprécier lettre position yi foofu nag divergent man la xalaat sama bopp man laa ci mën wax parce que du ma def réunion di wax keneen la mu xalaat ñun fépp daw feex dañoo jàpp ni président Macky Sall ba ñu ko bindee c'était le quinze janvier en vingt quatre heures quarante huit heures soixante douze heures amoon nañu temps pour que le conseil constitutionnel mën a saytuwaat mbir defu ko waaye ba mbir mi weesu mu doog ñëw woo nous on si nekk y avait plus de pertinence que wax fa dëgg yàlla ñuy demaat ci président de la république dès lors que conseil conseil génne na listam ba pare. Mm-hmm. pour que mu am dara loo xam ne da ko cee waxaat. parce que fi toll nii lépp loo xam ne dafay waxaat ci waxu parrainage day dugg dans une perspective de report des élections. dañoo d'accordoon dans le collectif. que mm-hmm. ce n'est pas envisageable ce n'est pas négociable élection vingt cinq dañ ko war a tenir le vingt cinq février deux mille bi nag demee na noo xam parrainage, peut éliminer les injustement, on en prend acte. Et on continue le combat sans être candidat. Nous avons revenir sur les parrainages. En tout cas, c'est pour faire d'accord Parce que, parce que, revenir sur les parrainages, c'est revenir sur la date de l'élection au et etc. d' accord kon docteur Cheikh Dieng bu ma la déggee consensus amul seen diggante déggoowu leen ci audience bi. non absolument pas absolument pas consensus amul ci. d' accord moo tax ba ah ñi nga xam ni peut être jàpp nañ ñoom war nañoo mën a gis président parce que président de la république dafa nekk koo xam ni institution la. du ñun ñoo ko bindoo di ko ñoom dañuy ah comme nee na ne la ñëw ñoom dañuy dañuy def ñeneen nag. man jëlaa bokk mm-hmm. ma ne audience boobu amatul pertinence parce que wax fa dëgg yàlla tey mënatuñu wax waxi parrainage parce que parrainage wees na du politique woon il koy samp mbirum parrainage moo taxoon ñu samp ko ña ca bokkoon ñëpp daa fekkoon premier tour parrainage jàll ñu woon ci ñu ni kon boole sunu doole boole sunu xel ak sunu xalaat pour xeex injustice bi nga xam ni conséquence na teg na ko ci sunu teg na ko ci sunu kaw et je pense que am na lu mu ci expliqué ci seen plateau boobu man am naa mille deux cent vingt yoo xam ni seen carte d'identité ñoom laa joxaat conseil conseil ba may def seen recours mm-hmm. mille deux cent vingt yi ñu ngi seen carte d'identité ñu ngi seen carte électeur boo xam ne dañ ko photocopie jox ma ko mm-hmm. kon muy la ñu dégg dégguñu ci fichier bi d'autant plus que man damaa vérifié ñu nekk ci fichier bi nga xam ni mooy le de deux mille bi nga xam ni moom la ko euh, Sénat mettre en ligne kon ñooñu pour ñu conseil constitutionnel nee na commune sur le fichier électoral mm. mooy li conseil constitutionnel wax tegu ko fenn lu dul dañoo dafa am commande pour éliminer docteur Cheikh Dieng mu am ñoo xam dañu ne mi ngi bind seen tur wala mi ngi bind seen sant baaxul. d'accord kon ñi dem. ñu renvoyé yi ngeen ko war a bindee noonu lañ ko war a bindee noonu ko bindee woon nii bu nekk deux mille euh, deux mille deux cent euh, deux mille trente trois pare exactement yoo xam ne dañu ko rejeté de manière injuste loolu nag injustice bu ci teg ci candidat yu bare la te loolu moo waraloon ñu créé collectif boobu pour xeex boobu injustice waaye ce collectif amul benn prérogative amul fenn yoon fu ñu waxtaanee ba jubóo ni dañoo war euh, waxtaan ci dara loo xam ne day jëm ci reporter élection yi. kooku en tout cas ñu fépp taw fex d'accord ñu ci tey euh, d'accord ñu ci ëllëg. d'accord kon ñi dem seen cëggal guy lañ demee et que luñ fa wax engagé wul ñeneen ñi bokk ci collectif bi engagé wul collectif bi on peut retenir ça. alors biñ ko waxtaanee bañ ci bañ bañ jubóo ci bañ bañu paree réunion bi jàpp nañ. bëgg a dem mën nañoo dem wante la ñuy wax dafa war a yam ci la nekkoon ci mémorandum ñu bind di ngañ élection yi lépp luñ ñu fa nag lu jëm ci wàllu report élection bi kooku absolument engagé wut yi nga xam ne demuñ ko d'accord d'accord leer na jërëjëf docteur Cheikh Dieng mais je vous remercie soxna Fatou décidé goo koy jàppale ba tey euh, décidé guñ ko ñu ngi ciy waxtaan ak ñi nga xam ne jàpp nañ ci ah, orientation stratégique mën nañoo jàpp ne war nañoo ànd bokk nag ah, ay concertation la yoo xam ne dañ koy def ak parti yoo xam ne ño bokk gis-gis ci réew hmm. wante fépp too feex jàpp ko ci dara d'accord kon ñu ngi lay déglu jërëjëf docteur Cheikh Dieng jërëjëf jërëjëf président euh, parti fépp Tawfekh Cheikh mu euh, nekk euh, ko xam ne itam membre la ci collectif des recalés xam nga ne depuis démb seeni wax la ñuy wax